happy birthday to you. aywa boo paree awa awa awa gàttal fa. ndeysaan ndeysaan. joyeux anniversaire Latir Diop di Demba. ndeysaan ndeysaan. happy birthday to you. ndeysaan sama yaakaar te soo yaakaar. ko jëlee sa àddina mi ñoom ngay dajeel ak bu bësee tuuyu ndeysaan ndeysaan joyeux ami merci ndeysaan kor soxna ndeysaan kor soxna sa yaay dafa muñ waay si li moo ci tolloo